أتاب للمملكة الأوتان باخنا

قبل منا مدزا محمد صلى عليه المباشر وغداني

bu ñu amee kilifa goo xam te ne xëy na toog nag ñëw wooñu ne nañu ànd sant Serigne Touba nañ ko yaatal ci murid yëpp ba murid yëpp ku ci nekk ñëw war cee mën a wadde sak sant Serigne Touba moom defe naa ni tawféex lay doon ci ñun kon bis ni ngeen ko na dañ koy woote rek waaye lépp daal moom moom ñoo ko fas yéene ànd insha allahu rabbi ñun dañoo nekk fii si ko taxawal yéen ñi nekk ci bi ñu fi taxawal baa ngoog ñu leen si woo di si woo waa daara bi yëpp Touba ñu ko ñu koy defee comme ni ñu ko daan defee rek ànd ko sant mel na ni suñuy suñuy jëw di tënk nañ lépp moom daara ji moom dañ koy waxee mbooloo bi jaxasoo na jaxasoo boo xamante ne daanaka tur soppeeku rek waaye waaye mbooloo bi genn la beneen bi si amit mooy cant gi nga xamante ne waa jawat la waaye doonu doon it seen cant waaw ndax cant muritu Île-de-France yëpp nañ woote kon nag liggéey bi na ko na jàppee seen liggéey bi bopp te xam ni kenn ëppalewu leen si bés bi waaw ñun nag wàllu boo xamante ni moom lañ moom lañ mën a àddu mooy wàllum xaside yi li si jiitu moom mooy kuréelu jawartu laa maanaam da leen da leen da leen dëmmal maanaam da leen da leen def seen référence si liggéeyu xaside yi mm-hmm. ndax seen pas-pas gu sell waaye maanaam anam gi ngeen di jàngee xaside yi waaw loolu moom maanaam ku ku waxal sëriñ bi rek xam ni maanaam ay ay royuwaay ngeen si waaw ba tax ni nag maanaam ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo si bés boobu waaw di di di woo jóor yi nga xam ñoom ñoo yor wàllum liggéey bi maanaam ngeen gën ko waajalaat bu baax a baax a baax maanaam ndeem ni ngeen ko daan defee rek ngeen defee ko noonee bésu cant moom yaakaar moom murit moom amul lu ëpp cant kon nag mu mu ngi noonu bës bi seen bës la ngeen ngeen ngeen defee ko ni ngeen ko daan defee rek moom su ko defee moom yaakaar naa ni moom tey ñaan sëriñ bi nangul ñu waaw ndax moom cant moom am lott nañ si di ko def moom mébét geeg nangu geeg lépp si sëriñ bi lay aaju kon nag moom wàccaay gi na sell waaye bës bi anam ngi koy defee na sell te lépp lu ñu fa am rek def ko addiyee Sëriñ Tuubaa li am solo mooy pas-pas ak sell pasaw sell ànd ci jëfandoo te loolu wax dëgg yàlla gis nañ ko ci yéen tey ndaw ñu ko ñoo ko sekk ndaw yu ànd bokk pëste kon taw fi yàlla si ñun ah, lu lu mel nii daanaka bu ngeen woon kenn wala yabal kenn doy na ñu xam ne yëpp benn la liggéey yëpp benn la ñu ñu doxee nag comme ku ne jàpp na ko sa xel bis yu ni mel mu doon seede ci loolu mm-hmm. seede nag moom des na ko jëfee jëfee nañ ñëpp xam ne lépp benn bu boobaa kenn ku defaroon ñëpp defar yàlla na sëñ bi nangul defal defal nangul suñu taalibe li li ñuy xëy di ko def bis bi set ñu sax si mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ci xaside yi sëñ bi nangul ñu ko sëriñ bi bis bi ñu dëgmal waaw lu ngeen ci yéene rek mu doon taw feex doon lu kawe njor te ñëpp xacc na parce que bi nag du caageen ñëw jàng xaside dem déedéet parce bi la ko jiitu la ba bis bi jàpp ndax liy tax bis bi dund ak itam tax buñ ci jógee rek ku ne na maat bis ba yàlla nañu sëriñ bi gën a téyal mbooloo mu gën ñëw boole gën ñëw sëtal ci boppam waaw jëf yi di gën a sell rek waaw incha allah ak li ci am solo mooy eh, li si naa lim waxoon kenn nit rek bu jaaree ci yow jub loolu moo gën àdduna ak li ci biiram te ba si ñuy jëf amaana sax nit nit jaaree ci bëgg ci liggéey sëñ Tuubaa bi nit jaaree ci gis benn jëmm ku mel ne sëñ sëñ gis ci gis ku mel ne sëñ Pape Thioune wala mu gis ku mel si ab Abdoulaye Ndiaye rek sopp ko bëgg xasida yi jaaree fa baax loolu rek jar na jar na àdduna ak li ci biiram kon ñu xam ne ñu liggéey benn la yéen da ngeen a nekk fee rek ñu nekk fii taverne kër Sëñ Saliou gi yéen ngeen nekk boor bee di kenn ku nekk nekk ci tool bi di di bayal sin waaye ñaari kuréel yi benn la ñaari liggéey bi benn la kon kon kon loolu moom na ci seen xel daal bu baax te soobu yàlla bu bés baa moom jàpp naa ne bokk caali ba yëpp duñ duñ ñëw sax ngir ñëw ñëw ay invité dañuy ñëw xam ne lii suñ bés la mm-hmm. ndax ak Ahlu Xasida dañoo woote te seen Sëñ Tuubaa moom murid ci ci ci maase waaw di di di wërte jégalu ci kàddu yi